samedi 24 septembre 2022 match amical Sénégal Bolivie nag euh, équipe bu Sénégal bi tey gaynde yi tey doon jàkkaarloog équipe bu Bolivie euh, foofee ca diwaanu Orléans mu nekkoon nag match amicale ngir waajal euh, coupe du monde Qatar 2022 mu nekkoon nag mats bu am solo ci taxawaayu gaynde yi gaynde Aliou Cissé nag wane fa xar kanam gu mat sëkk. quatrième minute bañ ko dawalee rek ci première mi-temps bi nag ki nga xamante rek mooy attaquant bi di bu Boulaye Dia si la dugal euh, bi bu extraordinaire euh, waaye 44e minute bi tam Sadio Mané tam euh, am penalty waaye tamit moom ci boppam mujj ko daal di dugal mu nekk 2 buts à 0 kon nag match baa ngi mujjee rek ci ginnaaw 90 minutes yi nag si Sénégal nag jël raw gàdd gi ci kaw ki nga xam ne rek moo di Bolivie ci de buts à 0 mu nekk match boo xam ni gaynde yi nag wane nañ ci xar kanam gu mag a mag waaye tamit wane ci li nga xamante rek moo di expérience bu taxaw euh, ba tax na itam équipe bii di Bolivie tey it jaaxaluñ leen benn yoon euh, ba tax ne nag euh, fii ak ñaari fan équipe bu Sénégal gaynde yi nag daañu amaat match amical seen diggante ak Iran mu nekk nag match boo xam ne ngir waajal ba léegi rek match amical ngir waajal coupe du monde 2022 foofee ca Qatar kon nag mbokku téléspectateurs yi loolu mooy li nga xamante ni rek information bi ñu leen doon jox ginnaaw si rek tamit ak ñu ngi leen di bàyyeek nag ngeen wax ñu naka ngeen gisee li nga xamante ni rek moo di match Sénégal